سيني دوانا دوانا لم جنا فونك موي موي موي كوما مي جنا ري موي القران الحديث تنزيل كتاب والحديث والادب لا جمع فضه ولا جمع ذهب واخنا نيتام نونا لم في باي ني ديكو دونو تي موم واخنا ني موي ليغي القران اك ليغي الحديث يونتي بخدمه الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث واخنا صاحني سما ديني موي القران الكريم ديني كتاب المصطفى la ghayru wa yantahi ila siwaya tayu kitabu kadini wa huwa khilli wa mu'nisi hadani bihi alhadi wa nafsi bihi zakka wax na ne mom la def sama wird yu may wird te moy kitabu rasulillah wirdi wa rahati wax ne itam dama moy ci alquran ni nga xamne borom beut yu mur yi nga xamne du gis ni mi moye ci kakoy womat noné la moye ci alquran maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaaidi l basiri l muin masaktu bil kitaabi daa iqaama li salawaati xamsi bi wax ne alquran dara mënu koo wutu ci man laa abtaxi dëhra bil quraani min badani danaa wax ne danaa giñ ci yàlla sax am na fu mu giñee ci yàlla ne giñ naa ci yàlla du ko bàyyi mukk moom alquran duñ teqali ko safat xayaati bi kitaabillahi wa lastu wallahi danaa wax ne alquran aljana la ci man ni aljana neexee ban nex bañu yik fa ajana mom la yik ci alquran quraanu rabbi li janna wa innahu li an ana yi junna motax mu da wax ne waxtu wu ne dina koy jang guddeeg bëccëg duma ko wutal waxtu li fek ma ngi nek ci kaw uratiluhu ma dumtu xayyan wa aktafi wa anfi bihi bi sa'ani an ni wax ne moy sama ñam xam ngeen ne ci bi mu ci geejju nek dafa at yo xamni kenn xamul lu muy dundé ndax li ko tuba bi doon jox te da ko jox mbooleem ñi ñu japp nungu ko wona jël waaye gis nañ mu wax ne man su jangé alquran mo xam sumun la jang wala xam wala nisf wala sama waqaf dama dal di suur Mana ne damaa jëfandiku ida qaratu sumunan aw rubua aw nisfan aw waqfan rawitu musbaa moo tax dara wax ne jàng alquran xéewal la gu rëy rëy nguur gi gën a rëy jang alquran te du ko jàng inna tilawatal kitaabi mulk wa huwa liman yabghi najaata fulk moo doon ay bagage am yi gën a rëy wax kita pun yërmaane ci leen bihi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi tagg na ba tey alquran xasida goo gis ci xasidaam yi bu taggee sunu borom tagg rasulullahi faw mu boole ci tagg alquran mën na ci jël akrim bi daalika alkitab fihi huda wa sawab fihi alxitaabu waljawab min rabbina dil qidami huwa shifa min kulli daa liman alayhi ictamada wa man abaahu turida daa xasratin wa nadami wa kullu ولم يجتهد بتوبة لا قارد من ربه المتقين وهو الذي من اهتدى بهديه ناله دا موي دب غيسغلو لب سي القران لاكو واخ يينن قصيده ييبيت نون فاو موتول القران تاكوكو القران نيت داكو دا دينك مردي غير ني فونكو واخنا ني موتاخ ليرك داماي واخ ني جان القران اب اب اب اب حاج لا سي دوندوك مريد بي مريد بي ak dundam da cee bokk jàng alxuraan Sëñ Tuubaa moo ko digle wax ne kullu muridin bii yaluusu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xadusi murid bu aju ci man digal naa la nga saxal di jàng alxuraan kay loolu ndigalu Sëñ Tuubaa la te kullu boobu la jëfandikoo yim nuy bigale xam Sëñ Tuubaa dafa bigle ba pare nag digle itam dafa dige waaye digle itam yi mu dig ci ay xéewal yoo xam ne kawe na njort bari na lool kullu muridin bi yaloosu yasaalu wa innahu min al ada mubaadu waaye kullu boobu la jëfandikoo waat wax na ci kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xayri dikrin xabla shirk iqra'uhu fi leyli wa fi nahaari li watihi wa sirri wal jihaari wax na itam njariñi jàngal xuraan loolu bindal nanu ko wax nanu ne sa yooyu jang alquran tim di ko ci kamil say wayjur ñi ngi len di falal seen bugal bu fekke ñu doon bugal lañ te ay yeufal lañ sax dañ len di bayyi duma yi leen doon duma ba nga jang ba noppi kep ko xamni tam yaangi tim ab kamil di jang do ñak ci bët loolu suñ tuba wax na ko yëpp wax na ko njariñ ñoo yëpp fa kullu ma fi fa ma fi mushafin qara'ata li wajhi rabbika axi khaffafta عن والديك في أمور القبر بإذن ذي الجلال دون نكر ومن لقرآن القرى بالنظر متعه رب الورى بالبصر مخففا عن والديه في العذاب ولو يكونان للشرك في الانتساب wax na lu bare bare ci njariñi jàng alxuraan daana wax ne yow murit bi bul tong mukk alxuraan bul noonu ak moom wut ci ab dog lu mu tuuti tuuti doonte wenn xët la dee ko jàng am na sax suñ tubaa xam nga famille tim bi da fay da fay moom mom do ne donte ñett isib da adim tilaawatan dal kitaab walaw salaatatan min al ahzab donte ñett isib da waye rek léeg mu ne nang ci jang sa kem katal moo tax kem katal nak yebul fenn mom waye dina wax ne bul ko tong laa tahjuranhu watluhu muabbida wastanbitan ma shita minhu abada min al ulumi mithla saalihi saraf daana tëkkoo itam ci ne képp koo xam ngoyul ci alquran na xam ne iblis mi ngi mooy ci moo téye loxom moo womat فمن لم يكن دهرا به ذا تمسك فقد قاده ابليس من لم يزل خبا دانا واخ تام نين خامني القران موكاوي لب دار تولو قد فاق كل الذكر ذكر الاحد المالك المكرم المتحد دا واخ ني نجوبك سون بروم اك صراط المستقيم مو القران الكريم هو الهدى وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من عافه لاقى الشقاوه danaa wax itam ne képp koo xam ni xolam jubluwul alquran na xam ne am na juróom-ñaari bàkkaar yoo xam ne mi ngi mi ngi mi boof ci xolam juróom-ñaari jikko yu bon mooy dambun wa kibrun wa israrun ala laibin xubbun li atimadun atimaadun lil xaliqa kadaka dufu yaqinin wa huwa sadisuha wa sabbaxuha bi takthir ibtidaat te mooy bàkkaar yu bari bu nekk ci sa ci yow boo baree bàkkaar doo jublu alxuraan loolu suñ boo réyee doo jublu alxuraan soo nuuroo ci am pox soo nuuree ci am pox na xam ne doo jublu alxuraan sa xol bu ko adduna feesee alxuraan doo ko mën a jublu sa pas-pas bu woyofee doo mën a jublu alxuraan boo nekkee ci ay bidaa itam doo mën a jublu alxuraan juróom-ñaar yi képp koo xam ne maanaam dëddu na alxuraan juróom kese moo ko dëddaleeg alxuraan lépp luy euh, ab yoon Sëñ tuba nee mi ngi ci alquran rabiha man yabudu bil munzilahu loolu wax na ci lu bëri bëri wax na itam ne jege sun borom ak li wax al al irfani mi ngi ci alquran kitabun azizun laa yuraqihi abidun wa yatluhu illa waxtawa wal qurba faman arada arada qurba min mawlahu falyaqra alqurana la yansa wax na ne ngërëmul yalla mi ngi ci alquran qultu faman yuridu yurid rida fa tadabbur qur'an daana digle itam ñu fonk diko jangale ndax bu ko kenn wu day raaf motax wax na mom sëñ bu mag bi ne metti bi gën metti mi gën ci metti yi mooy alquran wa afdalu nnaasi alladhi taallama qurana rabbih wa ghayran allama te lol hadith yu bi la ci way wax na ne ku am domit na nga fexa ba yobbu ko ñu daral ko alquran ndax neena xale bi bu ñewé ci daara ji jangal ko bismillahir rahmanir rahim na xam ne moom ci boppam xale bi bind nañ ne kii du dugg sawara moom baraatu min min minan naar lañ ko bindal du dugg sawara bàyyam du dugg sawara ay waajuram boog du ñaari waajuram yëpp kenn ku ci dugg sawara sëriñ bi ko jàngal dañ koy bindal ne ak ne moom ku set la ci sawara dugg sawara wa xaysuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu al aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxnamu loolu mooy ndigalu sëriñ bi kon ci alxuraan digam ak moom ci lu gàtt ñoo ngi jégalu guddal gi sëriñ Tuubaa moom ni ñu koy waxee lu bare bari lenn lu ne jox nañ ca yoon wu leer nañ li mu digle itam jëfe rek moo ci war ku ko jëfe di nga doon murid saadix képp koo xam ne bàyyi nga fi ndigal sëriñ bi nag di nga dajeeg lu la naqare sëriñ bay bi wax ne sëriñ bi wax na bind na def na lu gis te digle na kii moo ko war kat wàcc na mësul la moy mësul la fo waxam gën waxi ne jëfam a gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waaye li dëkk nag du fo foo foo nekk foo poma gëm ni kooka waaye ma waaye li dëgg gis ku ne fi waaye ma mu foo ko moy xumaaga ma foo gis ku ne fi waaye ma weddil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xar xumaag fi ruus ko bamba wurus wu sell la eh, waayam dërëm bu sotti la te ko amee rax yëru la raxaba day tax a ko yàlla yàlla musal ci am po ndax bokkut ak dara ci mbirum sëñ bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa